Assalamualaikum, famille internet, Yegle TV MTV Sen euh tay ngeen andat ak Khady Diva mu ñew fi ci Tableau am tay bi ñewé ñëwee ci am ñi ngi sét ci bax Yaay euh, boutique euh, bax Yaay naka def. Khady ma ngi fi. baa yaa ngi si jàmm. Ah, ma ngi sant alhamdulilah. Euh, bax Yaay tay ñu ñewon fi sét ci la ci sa place bi ngay jaay yu rafet yere grande dame yi nan nga def ba commencé li ak nan nga dundé li dal ba ba tay mu toll fi wa ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay fay ñu sant yaal bu baax baax. wax dëgg yàlla moom jaay yëri jigéen jafe na jafewul dëgg yàlla métti na tamit méttiwul. lan dëgg yàlla ndax euh, yëri jigéen soo koy jaay di nga gis lu ne dégg lu ne. kon maanaam xale jigéen yoo xam ne ñoo xam dañ fiy ñëw yaa ma gën a xam ñu jënd tax a jóg ñuy jënd leen tax a jóg mais teew yaa ma si bokk fulaak fayda xam li nga bëgg xam li nga bañ. soo déggee mën naa métti na mooy naan yombul maanaam des fois nii dina la lebal dina la dina ma sax nga ne ko lebal sax mu bàyyi la si wala wala instant mu lebal la nga lebal ko mu lay daw Ah. am na ñoo nag dégg ñu ñëw ñoom nag soo leblee rek ñëwaat dootuñ ñëwati. lan moo tax nga ni njaay mi yomb na yombul jigéen ñi daa am ñoo xam ne njaay jënd moo leen tax a jóg am ñoo xam ne jënd taxu leen a jóg lan nga bëgg a wax foofu. ndax dama leen am na ñoo xam ne dañoo nekk jaay yëri jigéen ñu yor place jékki-jékki yor affaire yi daanu parce que da ngay lebal nit du la fay wala day saa nit di la yaa ma gën a am di si lekk nànk nànk na affaire yi jeex yaa ma gën a xam. yan lan ngay wax sa mbokk yi nga xamante ne nii jigéen ñi dañ leen di leb duñ leen fay wala ñu ñëw ci jël seen i bagage dootoo ñu leen gis lan nga leen di wax. maanaam lu ma wax mooy ñu gëm seen bopp nekku yëpp client yëpp lañu war a lebal mën nañ lebal yenn client yi rek yoo xam ne am na si ñoom confiance ñu leen lebal yenn client nag ñoom yaa am gën a xam jarul ñu leen di lebal. seen dund bi fii metti na ak ni ngeen ni place bi ak comme dëkk bi ak ni mu méttee nii euh, ndax ngeen ci gis client ba tax ngeen war a mën a fay weer. wax deug yàlla ñi sant yàlla bu baax baax yeene jige so gëmé da ngay dem sa bop so gëmé xam li nga bëgg xam fa ngay tek sa tànk da ngay dem gëm-gëm la rek lepp lo gi nekk te gëm ko da ngay dem deug dëgg ci sant yàlla bu baax ñi gi suñu bop bu baax baax baax dafa mel ni jiini yéen a koy jaay wa yi jini ño koy jaay e bagage qualité la quoi jini bu baax la waaw jiini ñi koy jaay 6000 6000 te ñi ñu koy ñaa ngi koy jënd wax deug yàlla dañ am ay jiini jaay ay jaay 7000 sax bu 8000 de waaw mais yéen a ngi siy gis seen bopp. wax dëgg yàlla ñu ngi sant yëpp baax a baax si gis suñu bopp waaw. sa dernier mot. maa ngi leen sant di leen gërëm dëgg yàlla bi ngeen ñëwee fayu ma leen dara ngeen des dérangement bàyyi lépp ñëw ba fii su ngeen neexoon ñëw ne jox leen ma temps ma fay leen mais leen a bàyyi romb place place romb ngeen bàyyi place yu bëri ñëw ba sama place defal ma lii maa leen sant di leen gërëm di di sant sama client yëpp di sant ñëpp daal man daal mënu wax daal wax daal mënu ma ko ak Mariam lu baax baax maa ngi sant ñëpp di sant sama plantain di sant ñëpp dëgg yàlla ku lim ngay juum wax daal laa mënul daal mënuma wax daal ko ku bëgg gis Madiara ci yu baax yi nga xamante ni moom lay jaay na nga ñëw fii ci Mas Zinc table Thiam euh, ci en face euh, seen goldu ku fi ñëw dina la jaay yoo xam lu grande dame yu xale yu mag lépp lay jaay macha allah kon sama gaa yi jaay jëf ba beneen yoon incha allah merci beaucoup.